benn problème moo am man d'accordu ma ak Cheikh baara Ndiaye ci li mu wax te wax naa ko ku ma xam xam nga ma ak Cheikh Omar Diagne dama exprimer wu sama amitié ak moom ba taay yaakaar naa toog naa ci jataay wax ko nit ne ma noonu sëñ tuubaa nga àndal jibi àllarba ji weesu ju suba ji àllarba jooju suba ji bu ñëwee lay am 15 jours li ma naqari naqari na mais émission bi passé na ma fekk ko fi mu toog nga nekkoon ko nga laan mu ne ma waxuma la ne doo murit mais dama ne la noonu sëñ Touba ma dóor ko duma ko est-ce que xam nga 48 heures laa ku ñuy wax mas Dieng yónnee ma vidéo bu Cheikh Omar di waxee mooy fi ko benn murit tooñee wala kuñ ne mooy murit bu la nit tooñee doo yem ci moom tontu ko mais nga yegg ci pour faire mal nga yegg ba ci sëñ Touba nan ko bu la waxee nan ko def sa xol bi yaa moom sa xol comme ni nga ko waxee defoo ci sëñ Touba anyway amul problème. mais arrivé jusqu'à il est loin d'être un homme parfait loolu boo ko bëggoon a traduire ci wolof weesu weesuwut ci ñi yées la bokk waxuma ne moo yées de mais ci ñi yées la bokk parce que tubaab boo ko bëggoon a wax naan ko homme euh, yaay homme parfait du ko nangu parce que yonent bi salallaahu alayhi wa sallam mënoo tudd xaadim rasul ñu lay gam-gam la ci wet nga koy nangu mais il est loin loolu mooy lan wala dem ba yegg ci naan affaire mbooloo ngeen ñuy jaay man suma sëriñ am na nangami mbooloo loolu garaawut amut problème mais arrivé jusqu'à naan yéen murid yi maanaam amu leen liberté ñun man man am naa liberté man maa jël sama liberté xam nga xam nga moom bi mu bokkee ci coalition am na benn liberté ba mu wàññi ci boppam. Mhm. jox ko coalition bi moom du nu nekk la war a waxee donte nag wax ji may wax wax ju yàgg la mais man bi ñu ma ko tegalaatee ñetti at wala ñeenti at jàpp juróom yi ma ànd ak moom. lu mu woote mën na ci biñ koy jàpp fii ci ci euh, restaurant Yuma Amitié 3 fii boobu kele door a fa nekk Dame moom man Assane Diouf ak euh, Madina Dieng biñ paree lañ ñëw jàpp ko moom ak Karim xam nga kon mënoon nañ maa jàpp jël naa risque ak moom kon ndax mënoon nañ maa jàpp ndax na ma fa def discours noonu laa fa defee discours pourtant biñ ma tegalee mbir mi. te ca démb sa wala barki démb sa dóor naa nit parce que daf ne da ngaa ànd ak noonu sëñ Touba mais bi ma paree ñu tegal ma loolu mais dama ne man ki ma dóor daa mel ni tooñ naa ko parce que li ma wax dëgg la man kon ànd naa ko noonu sëñ Touba beneen bi muy bi mu defee li mu def gàntal lettre boobu lettre bi muy lu ma d'accord nag parce que man dama jàpp ne yoonu murid di sàkku ci état pour mu euh, dalalal ko ay ganam dafa dàqoonteeg njàngaleem sëriñ Touba dàqoonteeg njàngaleem sëñ Saaliw Mbàkke mi dernier muy doom ju mujj ju sëñ Touba ci kaw suuf parce que dafa ne woon état du Sénégal Ablaye wadd ginnaaw bu Ablaye Wade fexee ba nga xam ne bàyyi emphytéotique bi nga xam ne moom lañ jox feloon Touba par conseil privé bi fi nekkoon 1928 mu waroon jeex 78 Senghor renouvelé wu ko ab Diouf renouvelé wu ko ba ci Wade après 2000. moom non seulement yamul rek ci renouveler ko mais daf ko far def tiitre foncier yokk superficie bi bi mu defee loolu ba noppi demaat Touba sëñ Saliou bi mu sant ko gërëm ko pare bi mu koy wax ak yeneen liggéey yu mu bëgg a def mu ne ko sàllaaw duñ la def loo wala duñ la sant lu dut lu état warlul dëkk te mooy juróom yi jibi tali bu nit ñi di jaar farata la ndox mu nit ñi di naan farata la lu état war a defal nit courant bu nit ñi di niitoo farata la hôpital yu ñuy fajoo ak sécurité te lii génn na loolu kon lii lu yoon wi mënal boppam rawatina enveloppe boo xam ne matul 10 million ñu xam ci sikkus Cheikh Omar donte ne moom mënoon naa bàyyi mu jàll mais man damaa d'accord ci li mu def mais bi nga ko defee ba pare tëjal sa gémmiñ loo conférencé bi nga conférencé lan nga wax mbindum mag ñi c'est améliorable est-ce que danga nga cee fekk loo xam ne tey boo doon ñëw naan daal di fekk benn xasida Sëñ Tuubaa defaraat ko gën koo bindaat wala yooyu daal di pare wax jublu ci loolu conférence nga ne waaw parce que waxin dafa am est-ce que xam nga dama la jox exemple Abba No Stress taxawul fan yi naan euh, Pape Cheikh Diallo saytaane bi bi mu nangee meeg na pourtant Cheikh Diallo bu ko déggee day ree te pourtant baat boobu am na nu mu ko doon waxee rek mu metti parce que contexte bi la mais naqariwul si Pape Cheikh Diallo booy xool sax si daa la la parce que moom la mel ni moom lay défendre mais far moom la moom la xas parce que dafa yëkkati Pape Cheikh gis nga ñun loolu mooy ràññee ker ci biir lëndëm soo nee mbindum man mi c'est améliorable naan fi jamono toll ay nit a ngi dem ba ca planète yi waroon koor jot ñu war a lijjanti nan ban heure nga war a dog wala julli fan nga war a jullee te lii muy wax noonu béyaa baala la rek réglé na ko avant ñoom sëñ Tuubaa di ñëw sax far waxantuma la ak mag ñi parce que yow ji bi boo demoon ba àll boo xam ne wala géej xamatoo penku foo jàpp ne mooy sa penku mooy sa penku soo demoon tey jóge dugg ci navette daw ba planet Mars wala Jupiter wala Mercure wala feneen la technologie bi la yóbbu <laughs> moom xam na ban heure jot Sénégal technologie bi la yóbbu xam na fan la teer féete <laughs> kon fi teer féete mooy sa penku waaye bu dee ci wàllu woor yow boo demee yow ku nekk ci tukki gan nga beneen bi mooy boo xasee ba kii xam nekk foo xam ne xamoo ñoom seen waxtu da ngay sukkandiku ci waxtu dëkk ba nga jóge mooy montre yor nga ko ak leneen kon amul dara lu mu fi indi boo ne woon bindum mag ñaa ngi nii ba noppi nag daal di ci indi fu ñu juumee loolu boobaa ñu waxtaanee ko mooy xam-xam boobu dafa am ku la tabb nga nekk ci kon mënatoo wax nu la nekk su defoon laytu ba pare te gémmiñ du am problème ñi ciy wax nag di ci kii mooy y a pas de ku dara naqari man duma fi toog naan lii la naqari wala nangam ku ko politique yaa xam bu ngeen ko politique ñun am na nañu ay réponse yu leen di wan ne yéen ngi politique parce que ña ko muy ndajam keroog ñu ci bari maa ngi ci wax ku mel ni Baye Mbaye Guèye Sylla bi mu gisee ku mel ni Mame Mor Mbaye ak ñeneen ak ñeneen am na ñoo xam ne d'accorduñ ci nañ doon waxe Fallou Galass la dafa recadré ba sonn sëñ am sax yeggaliwul sax jotaay bi parce que ni jotaay boobu mujj te ña ko organisé ñoom xam nañu ne am na ñu leen rax te li ñuy def mi ngi nii premier ministre dem na fa démb gis nga Touba moom fépp la nit ñi war a tiit parce que Touba bu noonu damay marche tey par force wala nangam ak nangam première mi def wa ak yooyu sëñ bay jékki-jékki même bu fa demul woon sëñ bay jékki-jékki xam ne jàmmi Sénégal mooy ñu bañ a nekk di marche wala nangam bu wootee ne joxe naa digal toog leen seen i kër bu ngeen jullee ba pare toog leen ñëppay toog moo tax mbir mi moo tax ma ne la projet bi ku ko bëgg yàq la nga koy yàq loolooy wëlbati ko dooleel ko projet bi Ousmane Sonko da ko mën a yàq. jaajëf saa wala <laughs> est-ce que dégg nga ma projet bi laa wax. dégg laa Ousmane Sonko képp a ko mën a yàq. te ah. du ko yàq bu soobee yàlla. jërëjëf a jërëjëf. kontaan nañu ñu joxante rendez-vous samedi incha allah. maa la gën a bëgg waaye duma naa la ba ngay bëgg a dee. waaw nangu naa tey. waaw bii nag moom maa ci sant sama benn kilifa. ku la ko abal. abal sëñ bi de. ah fu muy bañ. <laughs> bañut fenn ki sama benn sëriñ damaa nekk Touba. mooy keroog bi ngeen may woo rek jour boobu ah, bi ma waree ñëw mais boobu daa fekk nga kaaw ndeysaan ma ñëw mu ne ma naa jaar këram ma jaar fa ñu waxtaan ba pare mu génne ñaari bopp vis yu seer xam nga ne lii dix mille mayuloo ko mètre bi mu jox ma ci ñaar jox ma parfum teg ci juróom benn fukki junni ma ne ko duma ko laal mu ne ma dimbale ma ngir sëñ baara daa gis dóor yi ma ngir ngir sëñ seex daal raxmaan dóor yi ma lay dóor loolu la tax mu yéene la jàmm sagal la xaw ma du may sol ko grand mbubb fi ne ma jaar tey bi nga ñëwee ma ne faaw ma faaw moom tey moom tane nga bi ñu commencé nag laa li nga soo rafet non fi ne nii jàmm ju rëy laa indaale jaajëf xam nga xam nga mënuma duma opposition ba pare nii <laughs> mi turee nee saa bàjjan maa ngi koy jaajëfal ci par gi nee neena nee na njulli boo amee foo jaar ak moom maanaam mooy boo ko téegalee sañ koo bàyyi mu kaset mu kasak xam nga téegal daa métti loolu de waxee mag la. <laughs> téegal daa métti jërëjëf Samara joxante rendez-vous samedi incha allah su neexee borom bi di géwal di ci ànd ak Samara ak yeneen sama gars yi. kii mooy association la àndandoo xeex géwal moo André. am ak <laughs> André Modou Ndaw ñoom ñooy association ànd xeex géewal te par force danañ seetaan si taxaw di ma sànni xeer ñu <laughs> dem noonu mu ngi noonu benn jom. <laughs> sama xuloo waale la moo tax da ngeen di comprendre. jërëjëf Samba sama yaay ummi ba maa ngi koy ziar. waaw yaay booy ñu ngi lay ziar bu baax a baax di la ñaanal fan gudd ak wér gu yaram jërëjëf. en tout a baax itam Ismaïla mi nekkoon ci wàllu xarale gi di ko jaajëfal bu baax baax ñoom ma jigéen ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziar bu baax a baax mbokk mu ñu doon seetaan rek moo xam ngeen nekk ci réew mi mbaa ngeen nekk ci biti ah, réew. waaw ziareel ma jëwriñ Amadine Baxaw Jaw jëw din Amadou Baxaw Jaw Amadou Baxaw Jaw dafa waroon a ñëw ah, tey ak démb euh, mais dana ñëwaat waaw incha allah jomb dina ñëw ngeen ñëw ngeen dina ñëw ñu yaatal incha allah moom moom ci wàllu wolofal ak lépp sax bind yu bëri moom moom ba am xam-xam la jërëjëf en tout cas euh, du côté des internautes yéen ñëpp ñu doon seetaan ñëpp cant ak ngërëm ñeel na leen moo xam ci réew mi ngeen nekk baa ngeen nekk ci biti réew bind yi gis nañ ko commentaire yi mm. aimé yeeg euh, partage yi merci en tout cas de votre fidélité Sénégal 7 di tuuti àndaat ak yéen ci yeneen émission waaye laata boobee rek yàlla mi am jàmm te kum defal jàmm nga am jàmm yàlla ñu yàlla defal jàmm ba ci kanam incha allah. amiin